dañu ñëw fii ci euh, visite de travail boo xam ne waroon nañ ko def ci ndigalu président de la république pour saytu lépp li nga xam ne mën naa yéexal projet bi wala ay gàkk-gàkk la yoo xam ne war nañ ko teggi fi ñu toll nii ñu sàkkoon nag euh, que ñu invité ci ndaje ñëpp yi nga xam ne euh, seen loxo mu ngi ci biir projet bi parce que loolu ministère yu bëri la ministère yu bëri bu dee gis nga stockage donc énergie mu ngi ci biir infrastructure ñu ngi ci biir parce que il faut ay tali ay voie de contournement yu war a am wala yu ceinture port bi pour continuer assurer que dëkk yi ko wër seen desserte mu assurer wu muy wàllu ndox parce que gis ngeen ni ne serait-ce que sécurité am na ay silos yu mag yoo xam ne war nañu am ndox waaye fonctionnement port dafa laaj ndox donc loolu lépp ñooñu ñëpp ñu ngi fi ñu leen di sant ci li ñu gungee ñu d'abord xool liggéey bi fu mu toll technicien yi entreprise yi promoteur bi wax ñu euh, pàcc bu ne fa mu toll

kon ku ci ne fa nga toll nga baral mbir yi pour que lii nga xam ne investissement privé la euh, ay sénégalais ñu leen ci sant parce que c'est important yoo xam ne seen expertise may na leen ñu dem convaincre ay financiers ñu mën a indi fi lu day na cinq millions de dollars investir ko investir ko fii loolu dañ leen di tirer le chapeau di xaar nag mu yemb parce que aussi warul des ci bu nekkee projet rek amagul njëriñ waaye une fois mu fii nar a commencé tàmbali ah kon képp kuy Sénégal di nga gis njëriñ tey bu xoolee port autonome de Dakar rek ak ni mu xatee waaye li mu tekki ci économie Sénégal nga war a xam lan mooy port ci ab économie parce que lu mu néew néew bu ma juumul samay directeur a ngi fi waaye damay jël peut-être estimation basse waaye lu mu bon bon 90 vingt pour cent xanaa économie sénégalaise day jaar ci portu Dakar kon loolu dafa am solo fii nag muy port boo xam ne bu ëllëgee lépp luy vrac yi lépp luy euh, liquide et cetera en tout cas dañu fi am condition yo xamné euh dana jafé ñu am ko fénen parce que port ultra moderne la jeté bi nga nekk ngeen gis ni moy que ni bateau bi du dem soxla dem ñuy draguer muy dem ba ci ci quai yi bir geej lay taxaw waccé limuy wax automatiquement lool dem ba ci fiñ koy stocker boudé liquide la wala boudé vrac la mu dem directement euh, de façon automatique lool déjà en termes de congestion dana am lu béré béré béré limuy limuy limuy limuy fajj